lu muy jël de retour ci mbër yi war na ko delloo ci làmb muy war na di organiser ay combat bu dee sax chaque mois jeunes yi di bëre parce que tey am na xale yu bari di entraîner te amuñu combat dañuy décourager dem dugg ci leneen ba tax na moom li koy xaar bari na surtout nañu def ay effort pour combat yi di gën a bari ñoom CNG bu ñuy mën a tëgg làmb pour jeunes yi di gën a bëre gis ci seen bopp xam nga di entraîné teg ci bëriwul tamit neexul bu yàggee nga découragé te bari na ci trop trop trop trop ba tax na moom dañ koy ñaanal yéen bi woyof te mu relevé daal défi bi ko fi xaar loolu lañ koy ñaanal moom. merci. roi des arènes mën a yóbbu ku nekk kay xam na kii eh. ku nekk xam na ni. ku ku ne xam na ni fu roi des arènes mën a yóbbu mbër xam nga làmb nag li nga wax làmb rek culture la te lu ci laxasu bari na waaye nag loo sangu-sangu loo naan naan loo takk-takk liggéeyoo boo ñëwee doo doo doo doo am résultat de pour man ba tax na ñëpp xam nañ ni sport entraînement mooy base bu njëkk bi mooy base bu njëkk bi bu doon loolu mooy daan bër kon sëriñ si defe naa ngembu seen doom ci ñëw ku ne lambu ne entraînement ba taxaw gis nga boo taxawee physiquement moralement côté bépp da ngay taxaw ba tax na mooy base bi waaye làmb la rek du ñu bàyyi dara xam nañ làmb yàgg na ci làmb xam nañu làmb laaj incha allah loolu làmb laaj rek dañ ko def bu soobee yàlla loolu mooy am. ne waaw waaw ñun lu ñuy wax CNG mooy ñun ñoo bokk liggéey bi te ñun ñoo mën a jàppalante mais defe naa ñun bëri lu ñu soxla bariwul mooy ku ñu jox considération parce que tamit bu ñuy wax acteur làmb bëri la mënoo jiite dara te boole woo ci bëri tey te lu bari ñun ay règlement dañ daan jékki rek xam nga réglement bi règlement bi règlement bële mais loolu passé na xam la mais lu ñuy wax rek muy lépp ñun la ñuy yëgoo ci biir xam nga luy xew muy règlement bi nga xam ne jëm ci mbëri yi am ku ñu représenté foofu di xam te defe naa mu ci biir am na ku ñu représenté foofu tey xam ba tax na defe naa daal du jafe affaire yi xam nga buñ ko tegee ci yoon ku nekk mën na ci gis boppam daal muy mbër ak CNG bi ak bépp ab lamb waaye waaye règlement kay ñoom ñëpp muy ñun bëri comme règlement moo ñu moo ñu ñu moo ñu faa ñu tegu ci ala ku leal loolu kay moom ku ku respecté wu règlement rek ñu rëgg sa dëgg xam na ni daan ji daan ji tegu boo deful lii la ci fekk boo ko xamee da nga moytu bu baax a baax xam ne ngay def daal dégg la laaj. Mm-hmm. waxit dégg dégg la laaj janvier bi nga xam ne li ci des maanaam du sax un mois yu mat xam nga te tey ku organiser bisam soxla nga promotion bu doy. Mm-hmm. utee sponsor sponsor yooyu noonu nga defal leen promotion ba si seen bopp. Mm-hmm. tey loolu waxin la waxin bi mooy staff bi gis nañ seen mbër ci état bu leen neex moo tax waxin la rek ni pare nañ waaye du caageen ni ci <laughs> janvier wala yooyu parce que promoteur bi tëgg combat am kay moom it soxla na ay def promotion ci combat am loolu loolu quoi dégg nga ko baax. waaw balaa ñoo posé beneen question ci question boobu rek parce que mënu ñu koy wax léegi dañ ñaan pour profit ci jóge xam ngeen làmb spectacle yi te spectacle dafa laaj public parce que bu doon mënoon a def comme ni gars yi leen liggéey champion da koy combat bi jaral na mais nanu ñaan nanu ñaan nanu ñaan ba pare na mooy ni ñu jël suñu matukaay ci jàngoro bi parce que demoon na bal na trois quatre cinq tey ñu ngi yëg te gàtt na vingt trente dem na kon nanu ñaan bu ñu bëggee combat bi ci ñam parce que yéene Ibrahima Sow mooy bu at ñëpp fii ba dund te trois mois ou quatre mois te combat bi amul mooy suñu yéen mais nag ci kaw Covid bi jógee sinon dinañ ko def huis clos nit ñi toog seen kër di ko seetaan bu boobaa jox ko pay per view jox ko pay per view ñëpp ko lu tëm lu mën a nekk la lu mën a nekk la mais ci kaw bu fi feebar bi na fi feebar bi jógee yoon lan la bi bu jógee combat bi day taxaw. Bégaye doguma la ci loolu doguma la ci loolu parce que gis na organisation bi ñuy wax lii da ci war a gën a feeñ. parce que tey gis na ay lu mel ne FIFA. Mm-hmm. di tëgg huis clos NBA yi. yeneen kii yu bari ñoo ngi. tëgg da soxla soxlawuñu public. Mm-hmm. ku nekk toog sa kër seeraat ko xam nga loolu yëpp dafay laaj organisation. moo tax kon li mooy wax chaque fois rek état bi faaw ñu gën ci jàpp. Mm-hmm. faaw ñu gën ci jàpp ba développé affaire yi nga xam ni tey. ay yii duñu tax duñu tee bëree. xam nga affaire bi dafa laal ñëpp dafa laal ñëpp. partout dans le monde. mais tey bu ñu amoon xam nga yenn organisation yi mën nañ di ko def tey kon fii ku teg toog sa kër seetaan xam nga droit d'image rek mën nga ci am li nga xam ne mooy loolu. kon loolu bëri na pour wii ko mu bëri problème. ah oui parce que xam nga tamit di entraîner te bëri woo dafa xaw a soof kenn bëggul soobee ah. Mm. te foog naa ne Covid moom ñëpp ñëpp ñëpp a ko yëg. mais di entraîner te xam te am xamoo foo jëm exact tamit xam nga neexul entraînement balaa moo neex ñu planifié ko am ne tey am nga benn temps de mois sa kanam lii nga pare jëm foofu noonu entraînement boo planifié wu sometime du mooy la quoi. léegi nag waxtaan nañu ci sunu ko génne boobu xalaat